Yon li ke jeli ki fi Woy, mwen ti na mwen koule dans votre scandale du jour de ce mardi 12 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements suñu Fofu foofu ginnaaw bi nga xamante di maître Moussa Diop actuellement mi en garde à vue si ay diffusion de fausses nouvelles accusations yi nga xamante ni na bu mu point de presse ci week-end bi ñu génn di accuser kii di Jean-Claude Mimran ak Macky qui dit di Abou Diallo di ben influenceur di activiste madame am nay kàddu analyse bu am solo boo xamante ni ci di maître Moussa Diop dañuy déglu ci Abou Diallo dellu si maître Moussa Diop ñu mhm. qui est maître Moussa Diop xam nga tey Maître Moussa Diop bu xoowee journaliste yi ci programme hmm. ne damay offre politique laa leen di jox à la veille presque deux jours ñu war a clôturer ñit ñi tàmbali dépôt yi hmm. mu choisir ni damay def révélation hmm. damay def déballage parce que dafa xam ne journaliste yi caisse de résonance lañ dafa tombé foofu parce que dafa xam ne looloo xew effectivement mais Maître Moussa lu luñ ko waroon njëkk a fàttali mooy kan moo jaay siège dem dikk APR waaw kan moo luwe woon ay bus ay yoo xam ne maître Moussa Diop mooy loué Moussa Diop. effectivement bi ñuy dem Podor. waaw mais loolu bi mu amee. Barthélémy Dias porté wu ko plainte. si mairie Mermoz Sacré-Cœur. waaw ne ko li ngeen tax ba xëyee siège APR mu génn ne ko ci yoon la ko APR teg. waaw boobu mu ngi nekk directeur Dem Dikk. waaw mais la protocole de salon moom Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias. mu ne moom dañ koo tooñ. ci yoon la jaarale woon lépp. Barth moo nekkul ci dëgg Ousmane Sonko woo ko këram ne ko nañ ko teg ci justice parce que ñoo far léegi si maître Moussa Diop accepte de laisser le dossier de Barthélemy Ousmane Sonko ne ko nañ ko bàyyi parce que dafa for dañu far ñoo far donc c'est pas maître Moussa Diop qui se lève aujourd'hui pour attaquer waat ñeneen. les journalistes loolu lañ ko waroon njëkk a génneel. c'est ça faux. mais peut-être que maître Moussa Diop bi muy ñëw foofu préparé na agence de presse am préparé na ay de communication jël na yenn journaux mi jël na yenn point commun. moom ba nga xam ne tey débat bi lay indi parce que am na soxla woon parce que c'est pas un politicien c'est un influenceur politique mhm. vraiment ah bon si c'est pas un homme politique Maître Moussa Diop est arrivé sur le terrain am na xam-xam avocat mais Moussa Diop lu ko indi sur le terrain AG comme li Alpha Thiam def rek il a sali nos murs AG jot na fépp nga ko doon gis en deux en 2011 l'événement du M23 ku ñëw ñu jox la micro loolu la F24 bëggoon répété wu. simb gaynde boobu moom ku ñëw yegg si rek ñu jox la benn micro. nga nga am tur nga xiiru. ñu def affiche ñu di ay pancarte. <laughs> mais finalement jàllul fële jàllul fii jàllul fee mais looloo indi AG mës ngeen gis parti mu dem ak congrès mës ngeen gis parti mu def renouvellement. mës ngeen ko gis mu participer ci élection. wala mu jaay carte. mais biñ ko jëlee dakaar dem dikk ci coowal troisième mandat mais après mu génn. Mok Barthélemy Sen procès rejoindre l'opposition Ousmane Sonko ne ko nañ ko teg consensus sur le faux et l'humilité de nous au niveau de l'opposition mais M. Moussa Diop du moom moyen yeewu vraiment génn taxaw di ci parce que dafa am luñ ko accusé mu préféré Teko pour des raisons politiques parce que nous sommes dans l'opposition préparer li nga à quelques jours dépôt candidature yi ne da koy wax dañ ko fekk pour que mu am benn buzz, boo xamante ni mën na ko yëkkati waaye ci mi que maître Moussa Diop révélation yi mu mi ci parti bi nga Bokk fi directeur général Dakar Dem bokk ci parti bi nga xamante ni kon maître musa Diop nekkul dara ci li nga xamante ni du un homme politique c'est un influenceur politique influenceur politique weesuwul tey nga yëkkati ay révélation di ko def te yow jamono ji ngay nekk ci biir parti bi loolu mu ngi fa xew yëkkatiwoo ko waxoo ko yéeyoo ko yàbbi ko brandir ay documents yoo xamante ni yow leer na la ay fenn kese la ba noppi yow nga def li gën a garaaw loolu fii nga xamante ni mooy siège APR kii di Moussa Diop moo ko jaay Dakar de euh, siège Dakar moo ko jaay ci yan condition maître Moussa Diop jël ay biisu Dakar Dem Dikk ko loué waat ko moom ci boppam maître Moussa Diop moom directeur Dakar Dem Dikk jël biisu Dakar Dem Dikk neen daf ko loué moom boppam moom maître Moussa Diop Barthélémy Dias topp ko ci ci yoon mu jóg ak taxaw fël ak fépp ne Barthélémy Dias nekkul ci dëgg yàlla dogal mu wax affaire troisième mandat ñu jëlee ko foofu mu génn nekk ci opposition bi moom Ousmane Sonko Barthélémy Dias ñu def réunion secrète comme du nga ko tànnee ci ñett ñooñu maanaam mooy li may wax gis nga waaye képp koo gis mu yëkkati ay accusation di ko teg ci nit maanaam la mu xam moom lay wax ni ko olof Njaay di waxee wax ju ñaaw jëmul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo kon maître Moussa Diouf lii mu tuumaal kii di Jean Claude Mimran Macky Sall ak Aly Ndiaye ci moom la cosaanoon ndaxte ba muy réunion ak Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias dafa xam ne dëgg que Barthélémy Dias moom moo nekk ci dëgg donc nañu yóbbu affaire bi ci yoon alors que ba mu nekkee biir APR Barthélémy Dias bëgg ko porté dafa taxaw ne si charte APR lañ ko teg ci cadre république lañ ko teg kon maître maître Moussa Diop il se prend pour qui pour duper les Sénégalais Sénégal nag mooy li mu leen di wax chaque jour gis nga ces politiciens opposition yi nga xamante ni ñi ngi nekkoon ci état bi nekk ci APR génn di leen wax ay wax ñooñu ngeen war a njëkk jël sanctionné leen dóor leen ay yetu xiir ba ñu faytee fële nga xam ne dañ leen yàpp yàpp leen weesuwul ñu nekk fenn di défendre benn position nekk ci suba ngoon guddeeg bëccëg ñu topp leen ci ci yoon ñu taxaw dëggal loolu yàlla dogal ñu jëlee leen foofu ñu ñëw jël loolu bëgg ko def injustice wala nangam sàngam yàpp nit ñi lañ def ñàkk programme ñàkk caution moo tax taxaw ñuy wax nii tey seen affaire politique yi ñu def dara taxawu ci nit ñi tilimal miiru Ndakaar yi foo tourné gis ko ñu binde ko seen yëfi parti maître Moussa Diop kenn mosu ko gis mu ongale organisé congrès ñan ñooy nekk ci gannaaw maître Moussa Diop mosul organiser investiture kenn xamul ñaata mbooloo la am ñan ñoo topp ci ginnaawam amul sax juróom-ñetti nit yu ko topp ñëw bëgg a amer ni en muy analyse bu pertinent bi nga xamante ne kii di Abou Diallo def na ko ci maître Moussa Diop te képp ku gëstu xam na ni que lii Abou Diallo wax mooy dëgg ci kaw ba ci suuf yoon di nga jël fi waay mënti ñaar